وأي عيد مثل لقاء المصطفى المحمود ترى السر في السر والكل يسره فما تم إلا السر والسر له بكنزية أو كنت قبل تعارفي تحرك من ذا السر ما كان ساكنا فلو بهت ما عندي من العلم يكفر إلها سوايه أو يروني أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو, أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو الحمد لله نñëpp wax alhamdulilah na ñëpp wax alhamdulilah dafa mel ni comme ni ko sëriñ bi di waxee wa kaannama almunasabatu hiya hiya walmadinatu ma zalat hiya hiya walmustafa ma zala huwa huwa wa zikrullahi ma zaala yujalli fa maza ataa bi insaanin an yaqul cheykhun jamaa allahu fihi kama qaala lahu shaaciru labasta xaqan aya talbiisi a cheykha tarbiyatin am cheykha tadriisi anta alladi bi kila alwasfayni muttasifun lillahi darruka yaa aduwa iblisi ka anni bi daari cheykhi unzur wajhahu wanzur fihi lyumna walxayra walbushra alhamdulilahi demb alhamdulilahi tey waaye alhamdulilahi ba ëllëg bi jaahi rasulullah ñi ngi sant yàlla di nuyu kenn ku nekk ci turam ak jëmmam jarul sax ñuy wax loolu ndaxte mulaaqaatu al ahbaabi xayrun min al awraadi wal azkaari te biñ fi toogee ba léegi liñ fi dégg mooy suñ ko gàttalee rek mooy Mawlana Cheikh Ibrahim suñ ko gàttalee mooy xadis bañ a cheikh mariam yal na yokk leeram doon jàngal di ñu wax ne sinfaanu min ummati ida salahu salaha annaas ma taxaw foofu ndaxte li liñ fi dégg yépp ci bunt boobu la jëm li ci topp yàlla nañu ci yàlla musal ida fasadu fasada annaas kon ñu wax alhamdulillah ñëw ngeen ziyaara si cheikh mouhamadul amin amut sikk ne seen ziyaara nangu na liñ fi dégg ci kenn ku nekk rek doy na yebbal fii ba dewen te loolu kon ci xadis yonent ba lañuy dellu rek yonent bi di wax ne ñaare ngi nii buñ baaxee ñëpp baax waaye buñ bonee lépp bon li baax yal na yàlla di ko gën a baaxal yàlla nañu yàlla musal ci lu bon yàlla mën na loolu yàlla nañu ko yàlla defal di ñaan yàlla ziyaara bi fi mu tombeel fi mu tombeel ak fi réew mi toll dama bëgg kenn ku nekk ku nga dendal nga jox sa morom loxo ñi joxante loxo ku mun naar naariya nga jàng ko ñi uutu ci mboolem population Sénégal ñaan yàlla suba buñ xëyee ñëpp joxante loxo ñi dellu ci jàmm bi nga xam ne moom lañ xamoon yàlla mën na loolu yàlla ñu ko yàlla defal te amut sikki ne danañ ko defal ndaxte jotaay bi biñ toog jotaay yu nangu ñaan la kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na fay yàlla fayal ñu safar si nga xam ne kenn xamut fu mu jugee Sénégal xamut loolu minut loolu te loolu du pour moom fan la jugee nag ak fu jëm wala fu kii ñun daal lañu yàlla musal yàlla delloo suñu jàmm ci suñu réew te yàlla danañu ko defal bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi jaahi cheikhna ahmad tijaani radiallahu anhu bi jaahi mawlana cheikh ibrahim damay wax keroog ma ne dañuy wax ne nañ ñaan waaye kër sëriñ si yëpp seen seen seen seen seen seen tax a juddu mooy ñaan kër sëriñ si yëpp keppaaru sëriñ si yëpp ñaan yàlla moo leen tax a juddu te biñ nekkee kër sëriñ ba tey saay buñ xëyee danañ fa jàng alxuraan danañ fa wasifa kon Sénégal jàmm rek moo fi am nañ dalal xel yi képp ku bugg a indi fitna yàlla nañ si yàlla musal yàlla na yàlla sàmm yàlla yàlla aar ñu yàlla yàlla def déggoo yàlla na yàlla dimbale ñu ba nga xam ne liggéey bi li ñuy xaar moo gën a bari bëri ndaxte Sénégal dafa nekk référence ci mboolem àddina nit ñi dañ fi ñëw euh, di dund ci di dundal seen roxo waaye nit ñi dañ fii ñëw tam di jël ay solution yu bëri kon Sénégal maxaama bu mag la am fa yàlla yal na yàlla saxal boobu maxaama ñu ngi ñaan yàlla képp ku fi teew ak aajo yal na ko yàlla faj ñu ngi ñaan yàlla te loolu am na sax ba pare ndaxte programme bi bi muy tàmbali Cheikh Abdallah dafa dugg ak ñun ci suratul ji ñu ñaan yàlla képp ku demagul makka ñu ngi lay defal tampon déwénee yàlla na nga dem makka képp ku demagul makka ñu ngi lay defal tampon bu déwénee yàlla nga dem makka képp ku demagul Makka ñu ngi lay tamponeel bu déwénee yàlla na nga dem Makka yàlla mun na loolu yàlla nañu ko yàlla defal ah ñi demoon tam yàlla yóbbu leen ñi dem ñi dem ñi dem mu nekk yoon bu ubbeeku kon ñi nga xam ne laa Mawlana Cheikh Ibrahim jàngale na ko dem na ba muy am doole dem na bi mu neewee doole kon dëgg-dëgg ñi ngi ñaan yàlla yàlla saxal jàmm ñi ngi ñaan yàlla tamit eh, eh, mag mu baax mag mu baax dafa wax mu ne day wax ak cheikh Mouhamadul day wax ak cheikh Mouhamadul Amin ne ko xaw ma kan waaye yow moom sa rendez-vous ak Mawlana Cheikh Ibrahim ak cheikh na Ahmad Tidiane ak rasulullahi rendez-vous bu leer naññ la kon dëgg-dëgg rendez boobu yàlla nañ ci ànd ak moom rendez boobu yàlla nañ ci ànd ak moom rendez boobu yàlla nañ ci ànd ak moom ndaxte. kaddu ñu fi dégg yëpp foofu lay jëmee jëf yiñ fi gis tamit yëpp foofu lay jëmee yal na yàlla barkeel yal na yàlla sàmm tànk yi ñëwee ñi demee yal na ko yàlla def yëkkatiku yal na yàlla def ko fajik aajo ñi dem ci yoonu makka yal na leen yàlla yóbbu ci jàmm indi leen ci jàmm ñi aj ci jàmm dalu si ci jàmm bu ñëwee fekk senegal ci jàmm nawet mi ngi ñëw yal na yàlla joxe taw yal na yàlla joxe taw yal na yàlla joxe taw dama xam ne euh, laata ñuy dugg ci ziyaara waxtaan yi yaatu na ku nekk di joxe xalaat dañ ko defee nii dañ ko defee nii dañ ko defee nii waaye ni ñu yàlla tànnal nii foog naa ne allah ndaxte ñi ngi fii euh, te tamit mboolem àddina mboolem àddina ñi ngi gis jotaay bi Cheikh Mouhamed El Amin ma nga foofu tëdd waaye mi ngi ànd ak ñun ci suba la oo ci boor 8 ne waaw nu muy demee ma ne ko ni muy demee mooy sëriñ bi nga toog Kaolack rek ñu ñu toog fii kon xam naa ne loolu jàngale la bu bees te tamit li fi génn yëpp alhamdulillah bu sëriñ bi toogoon danañ ko yërëm ci toogaay bi waaye alhamdulilah ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp ñi am soxla yàlla na ko yàlla faj waaye soxla bi gën a mag bënn bu nekk mooy Sénégal yàlla na ñu yàlla dimbale ba nga xam ne dara du jugee fenn di yàq Sénégal yàlla sàmm ñi fi nekk yàlla dimbale ñu yàlla mën na loolu yàlla na ko yàlla def ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp képp ku fi teew ak soxla ñi bëgg jëkkër yàlla na leen ko yàlla may ñi bëgg a dolli yàlla na leen yàlla dolli ñi bëgg ko lépp liñ bëgg yàlla na ko yàlla joxe waaye ñi joxe xaalis tam yàlla leen yàlla jox xaalis comme ni ngeen ko jundee ci tàmbali le Cheikh Mouhamadul Amin ku ko jox xaalis yàlla jox la xaalis kon ñi génnee xaalis yëpp joxe yàlla yàlla yokk seen xaalis yàlla yokk seen maqaama yàlla faj aajo yi yàlla na loolu yàlla defal ñi gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu may occasion bi dajalee pour ñu toog waxtaan sottante xel waaye lii dafa war a sax lii dafa war a dem kanam lii dafa war a nekk loo xam ne kenn ku nekk ci ñun joxonte loxo moo ñu war kenn ku nekk ci ñun euh, da ngay xool sa bopp comme na na na Cheikh Ibrahim wax ne ko bi muy wax ak njabootam ne ko kullukum miraatun li axi kenn ku nekk rek seetu la ci moromam kon dëgg-dëgg bu fekkee ne yàlla rek moo ñu tax a jug te moo ñu tax a kon a sax kon yàlla ñu yàlla ànd yàlla def yàlla def déggoo yàlla def ànd yàlla defal ñu loolu innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir wa kullu aamin wa antum bi xeer wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh